mu di soxna maam xari Mbàkke soxna maam xari Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada di jigéen joo xamante ne bii ab taxawaayam kenn na tableetu ko ci dëkk bii di Touba Serigne Mourtada duppee ko soxna maam xari Mbar di way wayjuru soxna may Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Khadim mu yaroo ci loxo yi soxna munatu mu jàngal ko alquran waaye jàngal ko ab liggéey mu nekk nag jàmbaar ci ay taxawaay yu ràññeeku ginnaaw boo xamante ne bii xam na boppam xam li mu doon mu fas yéene jóg nag bokk ci jigéen ñi nga xamante ne bii danañ jëmee liggéeyub Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bii ca kanam loolu tax na dugg woon na ci waaru politique ba amoon ci taxawaay bu ràññiku waaye ndégalul kilifaam génne ko ca mu daal di cay génn waaye soobu nag ci wàllu industriel ba taxawal usine boo xamante ne bii bu ràññiku la ci wàllu defar diwlin fii ci dëkk bu sell bii di Touba. waaye yemut ci loolu nag mu dugg ci njàngale mi ni ko way juróomu sell wa doon defee di Cheikh Mahamadou Mourtada di taxawal ay école di former ay xale góor ak ay jigéen am ci taxawaay bu ràññiku ba tey jii président de la république takkal ko ab garaat bu rëy te mooy décoration yi nga xam ne décoré nañ ko ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu daara loolu nag buñ ci ràññee sëriñ mbuub nappi teg ko ci xam nañ ne ab taxawaay bu ràññiku lay doon waaye moom it moo xam ne cër bi moomu ko mu daal di koy delloo way juróomu sell waa nga xam ne moo di ki taxawal institut al azar ci jamono joo xamante ni bii jamono ju naqaree taxawal la woon ci atum 1974 ba al azhar daj réew mi Serigne Mourtala génn ak moom ci bitim réew ubbis adduna bi kër yi Serigne Touba yi tisaaroo yëpp mu samp fa ay daaray alquran ba xaafisul quran yi nekk ay tubaab ay italien ay espagnol ay français ak ay américain kooke mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada góor yàlla di wayjuru soxna maam xari Mbacke mii ñu delloo njukkal tey jii mu fawaat nag raaya woowa delloo ko wayjuram wa di Cheikh Mouhamadou Mourtada soxna maam xari Mbacke yàlla yàlla yàggal la jamono te baril say kem